opposition bi nek dans sa globalité meun nañ ko scinder en deux dafañ ko am une opposition radicale une opposition haineuse une opposition bo xamante xeyna mom day wane bopom fu mu toll am benen opposition bu gëna a mesurée boo xamante dafa bëgg dialogue bëgg xalaat tout le temps stabilité du Sénégal

dañ ci and wala ànduñu ci loolu xëy na ñoom ils pourront répondre à ces questions là waaye ma jàpp leen ko képp kuy sénégalais gis li xewoon foofu war nga mën a poser une question très pertinente kan moo bëggul Khalifa Ababacar Sall bokk ci élection yi est-ce que opposition. docteur Ndeye Soukay Ndeye. ñun ñëpp ci ci bokk Khalifa Ababacar Sall lu tax ñu ci Khalifa war a bokk ci ci présidentiel loolu c'est une question qu'on doit se.

Khalifa Sall il faut le reconnaître participation dafa am ñu mu titre nous nous Khalifa du